faddalahu alxalaaqu yaa man bihi faaraxani alimlaaqu waajaatuka alyawma walirrazaaqu kaana bimaa tanmu bihi alarzaqu mahawta anni maa bihi nnifaaqu anni maha wajaani nnafaaqu radatta li maa zaanahu alwifaaqu biman bi sanaarati alafaaqu jaa arrida walfawzu wal i'taaqu bika kama bika talat xitaaqu bika xtawaynaa maa lahu nashtaaqu salla alayka al akramu alxalaaqu yallaahu salli wal tusallim sarmada ala annabi alarabi ahmada wa alihi wa sahbihi wa adhibi li gayri nahwi kulla durrin yadhabi yàllaahu salli wal tusallim fi abad bismillahi rahmaani rahim ginnaaw biñ leen ñëw di leen ziar bu baax baax di jaajëfal ci bis bu tedd bi di bisub Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké di bis bi nga xam ne moom la gane woon jamono ñu di ko fàttaliku tey ci dëkk bu sell bi di Touba tombeeg le 28 février 2022 tey ñoo ngi fii ci kër Soxna Maa Awa Mbacké bokk ci caatu Cheikh Mouhamadou Fadel yi moo defee def bésub cant bésub ziar képp koo xamante ne kilifa diine nga rek ci suba ba léegi yaa ngi fi ñëw di ziar si soxna su seel si di soxna Maawo Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacke kon bu ko defee nañ daal di jël kàddu gu rek jébbal ko jëmm ji sell ji di soxna maam Awa mu Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacke mu fesal yéenam ci bésub waajuram bu sell bi مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما allahumma salli ala muhammadin hatta la tabqa sala allahumma wa barik ala muhammadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen baalu àq tey di leen baal àq di ñaan sama borom mu boole ñu jéggal di ñaanal bu baax a baax a baax Cheikh Mouhamadul Mountakha sama borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te ànd ko wér di ko ñaanal soxna mam Awa Mbakke Falilu ñi nga xamante ni moom moo tax ñu daje tey jii di bisub baayam di Cheikh Mouhamadou Fadal di ko ñaanal sëriñ Amsatou mi nga xamante ni moom mooy kilifaam it di ko ñaanal kii nga xamante ni mooy Cheikh Ahmadou Abou Baraka. moom it di ko ñaanal sama borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te ànd ko wér bu ko defee ñu dégtal leen lii nga xamante ni moom lañ dund tey ci màggal gii nga xamante ni moo di Kazu Rajab ci kër gii nga xamante ni moom la ñuy waxee tey muy kii toog ak ñun ñu koy wax soxna maam Awa Mbakke Falilu ñu koy koy wooyee soxna maam Awa Coogo bokk ci njabootu siñ Fallu bokk ci ñi nga xamante ni ñoo mujj ci leeru Sëñ Fallu yi nag bis bi ni nga xamante ni noonu lañ ko waaje laata màggalu Kazu Rajab bi di delsi def nañ ay limi alxuraan yoo xamante ni dañ ko tasaare ci mbooleem daara yoo xamante ni dañ leenu xam lim yi nag daanaka bañ ko xaymaayee mënuñ leen wax lim bi fi mu toll tey jiit ba ñu xëyee suba li ñu njëkk a def mooy jàng alxar alxuraanul karim bi nga xamante ni mooy waxi yàlla gi ba noppi teg ci ay bayitu xasida yenn daayira yi ñëw tàmbalee di siyaare si ba fii nga xamante ni noonu la ñuy wax ak daanaka daayira yi ñu ngi wéyale siyaare yi incha allahu rabbi nag tey jiitu guddi ci buntu këram gii dana fi màggal guddi gi nga xamante ni ku ne xam na ne guddi gu màgg la guddi gi nga xamante ni ku xam na ne guddi ngëneel la guddi gi nga xamante ni ku ne xam na ne li nga xamante ni moom moo fi xew di ñaan nag sama borom. mu may ñu ngi fekkee ko ay at yu bare bare bare bare bari te di ko ñaanal nit sa borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool te ànd ko wér mi ngi sant nag mbooleem mbokki taalibe yi nga xamante ni dañoo jugee ci barab yi nga xamante ni ay barab yu fasante la di sant it mbooleem daayira yi nga xamante ni dañoo jugee ci mbooleem région yi ak ñi nga xamante ni dañoo nekk bitim réew soxna si nag sant na gërëm na gërëm mbooleem koo xamante ni amoon nga yéene teew si fi baa nga amoon yéene it maanaam ñëw fi ñu ngi ñaan nag loo xamante ni bis bi làmboo na ko sama borom dajale ñu tawféexam ak ngëneelam barkeb Cheikh Mouhamadou Fadel mi nga xamante ni moom moo tax ñu woote bis bi salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ala nabiyika almuzahzihi salaam sayyidina muhammadin wal aali wa sahbihi fil haali wal maali واجعل به هذا النظام خيرا نظم وزحف لسوانا ضيرا يا الله يا أحد صل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنطقي سدد وقلبي علم yallaahu ya latifu salli abada ala alladi bika tada wa abada sayyidina muhammadin wa sallimi wa alihi wa sahbihi wa kallimi tey ñu ngi fii kenn ku nekk xam na ci suba ba léegi mbooloo mu takkoo takk ñu ngi ñëw fii di ziar soxna si nga xam ne moo di soxna Maam Awa Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke fekk soxna yi ci kër gi nga xamante ni depuis bi màggal gi jubsee ba léegi ñoo ngi dañuy daal di gi soxna si nga xam ne moom lañ dendal rek bisimilahi rahmaani rahim sant yàlla di julli ci yonent bi sant Mamadou Fadal sant soxna Maam Awa Mbacke bañu ñu moom ba tey yàgg na fanweeri at waaye réccu ñu ci dara defar nañu defar sunuy doom formé daayira xale yu ndaw di leen jàngal alxuraan di leen woon yoon yoonu Serigne Touba di leen jàngal li fi Mamadou Fadal bàyyi xale yooyu tey jii ñoo doon ay xale tuut tànk yooyu tey ñoo doon ay mag tey ba ne ca waañ ba ne doon daayira amoo bi di wax sama rakk awopoor port mu ñëw takk ndiggam ànd waa port ñu forme fi daayira daayira boo xam ne wu mucc ayib ndax ñun sëñ Fallou lañ gis bu ñu dogalee lum ñu dogal ñu nangu ko Mbàkke bàllay sa sëñ Fallou mooy su ne kanam sëñ Modou bu sa jeeg ne woon na ku ma soxla te gisoo ma demal ci soxna Maawa lu mu dogu mu am kii mooy caat ba mu ganee àddina sëñ Fallou dafa ne sëñ Modou dama jëndum tudd dama la koo jagleel sëñ Cheikh ka moo ko waxtaan fii may dégg neene sëñ Modou bu sa jeng jëndu tudd mu rëy ba mu jëndee tudd ma màggal gi neex lool sëñ Fallou di bàgg rek ñu ne ko Mbàkke Bàllay sa màggal gi neex na mu ne daa mujj a mujj kii mooy sëñ Fallou soxna Maawa mooy sëñ Fallou ñoo ngi koy ñaanal wér ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ñoo ngi koy ñaanal barke ñaanal ko lépp lu nga xam ne rek luy lore yàlla bu mu ko jegeñ di ñaan sunu njaboot gi lépp lu ñu yaakaar ci sunu njaboot gi nañ ko teral ndax Mbàkke desee la dara desee la dara ñoo ngi ci ginnaawam nag ñun ay Baay Faal rek lañu lu ko neex rek nañu ko teg ñun ay Baay Faalam rek lañu taalibe yi ko teewewu tamit ñëpp seeni xol ñëw na ndax képp kuy taalibe sëñ Fàllu boo sañoon di nga teew waaye ku ñëwul sam xel lépp a ngi ci biir ñi ñëw ak ñi ñëwut ñëpp a yem ndax ñëpp sëñ Fallou lañ bëgg seen xol xañ na jamono moo dem ba nga xam ne day am ñu man di nga am mën a ñëw ak mën a dem waaye ñëpp a bëgg a ñëw kenn ku sam xel ñëw naw wala sa xol a ngi ci biir Touba ndax Mamadou Fadal jalal nañu ko ak yaatam mi ziyarati wa qalbi wal midaad wa jasadi min xayri ajrin wa sadaad وعلمني اليوم ما لم أعلم واشكر لوجهك الكريم كلمي واجعل قلامي ومدادي قاصدة إلى رضاك خير زرع حاصد وطهر الظاهر والباطن يا ñu ngi jël kenn koo xamante ne mi ngi bokk njabootu soxna maam Awa moom Cheikh Mahamadou Fadal Mbacke ñu gis ki ne fan yi yëpp bi nga xamante ne moom la ñuy waaj màggal gi boobu ba léegi soo gisee soxna si da ngay gees gis ko soxna si waaye yal na yàlla nangu ziar euh, euh, man la soxna Awa Waaj moom sëñ Fallou moom soxna Maawa Mbàkke soxna si nag suñu borom danoo boole sëñ Fallou boole ñu jël buntu buntam ci moom teg ñu ci ay loxoom muy na Maawa Mbàkke di caatum sëñ Fallou ñu ànd ak moom depuis 93 ñuy daay port autonome dakaar di ay tout tànk bi ñu fiy ñëw ñu nekk ay xale yu ndaw ñu bari sëyaguñu woon ba ci man mii di wax ak yow ba ñuy ñëwee moom di ànd ak moom sama mag ju baax jii toog di soxna may waaj présenté ma ko ma nekk ak moom ma ne ko man de yaaram mu ne ma damaa bëggoon tey comme ñëw ngeen tey ji seen première màggal Touba fii ma ànd ak sama yeneen ñaari xarit ñuy ñeent ngeen toggal ma ay añ yëbbul ma ko asalam ya ci sëñ am sa Mbàkke muy borom këram bii bi ñu toggee bi ma ko ne man day Mbàkke joxe naa sama bopp waaye xaaral ma laaj samay xarit yi ma àndal bi ma leen laajee ñooñu tamit ma ah ñun day awa foo nekk ña nga fa liggéeyal sëñ Tuubaa moom boo ñu ci wooyee ñun ñëw nañu ma ànd kook ñoom ci waañ wi muy ci ñàkkum ndoxu Tuubaa ma ñu togg suñu añ yee pare midi ñu daal di koy woo ne ko soxna si añ ya pare na ñi dawoo taxi mbaar teg ko ci dem sarwi bañ demee da nga defee ne ay ndékki la bi ñu sarwee ba pare ma ñibbi si ñëw daal di teg ma benn ci nu mbaxal teg benn ci nu euh, euh, tufe bi ma ko paree ba ay boori 6 heures sama xarit yi ma àndaloon ñëpp na ñoom dañuy dem siyaare ji ah, ah, jumaa ja ma ñëw sukk ci wetam na ko man day mbakke damaa bëgg a dem siyaare ji jumaa ja mu ne ma andi sa loxo ma ànd ak moom ba ca waañ wii tey mu ne ma looy wuti ca jumaa ja ma ne ko man day jàmm xéewal mbàkke dong laa fay wut mu ne ma defal naa la ko ci taal boobu loo tàmbalee suñ fàllu yeggale ko waaw booba tey day 30 nangam temps la te day yokku naa jot wax ku la xool xam ne yokku nga ku la xool xam ne taalibe nga loolu doy na boobu ba tey jii nag képp koo xam ne présenté naa ko nag ba ci sama xarit bii nga xamante ne moom it Italie nekk bëgg sëñ Fallu ba am doom bu jigéen tudde ko sëñ Fallu jaayante lépp moom it ñu ànd ak soxna si muy nit ku yaru ku doylu ku bëgg sëñ Fallu ku bëgg sëriñ Touba lu mu liggéey lu mu am bokk na ko gaan ñi tey bu ko neexoon tey këram gii doon leneen ba ba ñëpp di ko seetaan waaye dafa jël lépp jaayante ko jënd ko ak bi ak liggéeyal ko sëriñ depuis ca Covid ba ba mu nee ma Covid bi def naa fi un mois xaw ma ndax dinaa dellu Italie xaw ma duma dellu mu ne ma carrément damaa bëgg li ma bëgg a liggéeyal Serigne Fall day jàppandiwul ci man waaye bëgg naa nga nga nga liggéey mooy jënd ay moquette yóbbu ko ca barabu Serigne Fallu ba ma daal di koy wax sama mag yeeg sama mbokk taalibe yëpp ba ca Italie ñooñu ñëpp kenn ku nekk jug ba keroog altine lañ ko dajale fii yóbbul ko euh, sëñ Abo Mbarak sëñ aboon na ko jàkk ne ko addiya ji ñu fi indi ak mukket yi jëm barabu sëñ Fall ba boo ko laloon ci sa kër googu sa saal boobu jox nañ ko sëñ Fall waaye dangaa jël lépp jaayante ko jënd ko ak taalu waaw sama joo nekkal jox nga ko cër jël nga lépp jox ko addiya mu ànd ak yaram bi nga xam ne dara yëngalu ko mbàkki waaw mujj ci néeg bi nag dem caat soxna maa kum bokkal dimbali na la kuy ab taalibeem yërëm na la kuy ab taalibeem yiir la kuy ab taalibeem aar te man xam naa ci dara man soxna si daf may lijjanti ba lay nekk sama kër di fa ta toog di fa fanaan war fa ma maa aar wala war maa jàppale sax da koy lijjanti di ko fa yóbbu ba ma tabaxee sama kër ba pare dama ko jox caabi ji ne ko ay canu dëkke waaye tegul kenn fitna dana ma téyel heure bu ma soxlaa dinaa la ko laaj wala ku ma soxla jox la ko nga dëkkal du sas kenn dara teguñu benn fitna lu ñu am andil ko doylu na bëgg na sëñ Fallu yaakaar na ko wóolu na ko doyloo na ko toog ci buntu këram bi dimbal dikkul nekkul ci benn projet kenn dimbali ko nekkul Sëñ Fallu ñun nag ñu fas yéene koo bokk ak ñoom moom ba keroog ñu sàngoo suuf barki borom Touba lum ñu diggal nu def lum ñu tere nu bàyyi fii la ñu caatloo te fi la ñu fii la ñu taawloo te fi la ñuy caatloo fi la ñu déggee euh, mademoiselle dégg fi madame te fi la ñuy déggee mère dégg fi grand-mère waaw te macha allah dégg nañ ko fi kon nag noo ngi sant yàlla bari wér di julli ci yonent bi di sant soxna Maama Mbacke di ñaan mu yàgg fi loolu te wér ak taalibe yëpp ak ñi ko bokkal ci barke Sëñ Fallu jërëjën jëf man awa ah, soxna Awa Waaj mi moo ma booleek moom mais rëccu ma ci dara boobu ba tey ca kaw ca kanam damaa waroon a dellu ah, avant kazu rajab bi mu ne ma toogal nga xaar kazu rajab bi ndax kazu rajab bu ren gii sëñ fàllu ku fi ñëw mu faj sa aajo te ñun xam na ni sëñ Fall fajal nañu suñu aajo kon nag luñ def lu dul sant gërëm ñaanal ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñu gunge di ñu gunge di ci gunge ba gunge suñuy sët ak suñuy sëtaat barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jef wasalli ya nafiu wal tusallimi ala nabi al hashimi al alami سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي بلا درر نفعا وكن لي بالحسان والدرر وسل يا حليم ولتسلما على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل wahab liya al-ilma as-sahiha bikuni ya man tukawwinu munan lam takuni wasal ya latifu